Nous, pêcheurs de marée glaciaire de la Petite Côte, déclarons que nous nous démarquons des pratiques consistantes à amener de force des soldats bissau-guinéens aux côtes sénégalaises. Depuis 1990, nous pêchons en mer de la Guinée-Bissau. Nous avons toujours été victimes de tracasseries de la part des gardes-côtes bissau-guinéennes. Mais nous avons toujours su négocier avec eux, avec intelligence et respect. Il nous arrive même de payer des amendes en pleine mer, malgré que nous détenons nos licences de pêche dûment signées par les autorités de la Guinée-Bissau. Mais nous ne leur avons jamais opposé une quelconque résistance. Alors, sachant que ces incidents peuvent être à l'origine de tensions, de tensions diplomatiques entre nos deux pays. Et plus grave encore, ils peuvent conduire à des bavures militaires aux conséquences dramatiques. Nous appelons tous nos frères pêcheurs à la raison et à la retenue. Ainsi, demandons-nous aussi demandons-nous à l'État du Sénégal de diligenter des négociations avec la partie bissau-guinéenne pour que les aires marines protégées soient balisées. Parce que les limites de ces aires marines protégées sont souvent à l'origine de, controverses entre les pêcheurs sénégalais et les gardes-côtes bissau-guinéennes. Concernant ceux qui pêchent avec des filets monofilaments, ils sont tout simplement dans l'illégalité Ils doivent se conformer à la législation bissau-guinéenne s'ils veulent travailler en paix et en toute quiétude. Je euh, suis dëkk fii Mbour Tefes di wax euh, regroupement du PCR du Sénégal euh, bi nga xam ne dafa ëmb kuréelu mool yëpp di ñaawlu comme ni ko sunu secrétaire général waxee Abdoulaye si ñi nga xamante dañuy jalgati si digënté euh, réewu Bissau ak Sénégal si walu napagi gi loolu ñun ñëpp dëgg la ñun ñoko ñaawlu waye lima ci si rek moy ñi ngi balu ak euh, gouvernement di Bissau ñëpp ñu leen di balu ak si nyumte gogou aussi ñu ngi ci balu sa Sénégal yëpp parce que neexuñu rafet lu ko lolu lu ñu ñaawlu la ñun yag nañu am ay problème comme ni ko Ablaye waxé mais daanañ ko séré suñu biir daañu daañu ko wax sa gouvernement té vraiment ay euh, yu metti lañ doon dundu fekk ci place ne la fi park la yobul la laaj la xaalis nangu sa essence wala nangu sey jën lolu dund nañ ko ay at yu bari comme ni abdoulaye waxe 1990 ba legui bon waye nak lolu yeb dina bi len balo ak ta tamit lima ci siy duma jaral fi abdoulaye jaaroon moy problème bi dafa am fi ci biir Sénégal suñu biir lo xamanteni aussi dañuy euh, yëgal suñu suñu gouvernement yi ñu bàyyi ci xel ndax fi suñu biir réew euh, amna façon nappin yoo xamanteni ni yu ñaaw la

mu jóg orienté mool yi organiser leen ku nekk xam ni nga war a nappee ak fi nga war a nappee bu defee ñu mën a defar suñu géej sàmm suñu géej ba xëy na sax dootul jaar ñu dem si réew jàmbur di fa jë di fa jëggaani ndax lii ñu dal ni yëpp dañoo saggane suñu géej rek bu ñu toppatoo suñu géej aar suñu géej ah, jëggaani mi du du demee nii xëy na lu ñàkk waaye du demee nii hmm. waaye bu ñëpp da dawee uti Gàmbi doyatu leen ñu dem Bisaawoo doyatu leen ñu dem Conakry ba dem Libéria c'est parce que géej gi moo moo yàqu-yàqu goo xamante ni dafa laaj defaraat te mm. loolu loolu mën a sukkandiku pour que mbëkk mi fi jaar ak yooyu yëpp mën fee jóg parce que ñooñu ñi ko def ñëpp ñàkk a pexe moo leen si dugal mm. waaye gënalu leen mm. loolu nag ñi si ñaan suñu gouvernement mu taxaw si nu mu gën a gaawee wasalaamu aleykum wa rahmatulahi wa barakaatuhu